mbokk yi seetaan ak di safoo suñu gal 24 mbégte la ñuy am ci topp gi ngeen ñuy topp tànneef gi ak kóolute gi ma waxoon waxeet doon na baat boo xam ne miin nañ ko ci Sénégal ginnaaw kunkande ak wax ji mu waxoon suba di bisub tamxarit ñu koy xaar mu xar géej gi Kunkande génnaat na ci ba mu set wecc ay kàddu yu ñu biral jëmale ko ci mbirum xar géej gi Kunkande nag dafa dal di fay suñu naataango yi di impôt lu tolloog fanweeri junni yoo xam ne dañu ko defal émission ngir mu génn ne ay kilifa ñoo ko ñaan ci réew mi ngir mu bañ a xar géej gi boobule médiation nag dafay doon loo xam ne rek dafay firndeel suñu wax ji ñu waxoon ci ginnaaw bu ñu leen koy toppal fan la yëfu kunkande yi toll jëndum billet mi dëgg la topp nañu ko ba xam ban agence moo ko jaay billet ngir mu daw làqu ji ca Maroc loolu nag sottiwul ndax dem nañ ba démasqué ko mu dal di tëral beneen plan boo xam ne mu di génn amal boobu boobule médiation ba dal dina leen di jox heure bi nga xam ne moom la ñu war a teg boobule émission kunkande dal di koy amal suñu nattango yi di improd bu Medoune Diouf kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi woy di topp programme Sunugal 24 man ngeen dem ci bu 23h jotee xaar émission bi ma leen di wax pour wax leen ne li ma leen di dégtal ni fu leer laa ko teg bu 23h jotee la leen wax ñu dal di boobu boobule émission entretien bi ñu am ak Kounkandé ngir mu wax ne kilifa yi ñoo ko ñaan mu bañ a xar géej gi ginnaaw teg na plan wu ger tra communicateur traditionnel yi ci réew mi jàllul mu fay ndawi Yoff yi ak Soumbédioune jàllul dafay tegaat beneen plan boo xam ne rek. dafa génnewaat xaalis fay ngir def émission ngir wax ni ay kilifa ñoo ko ñaan kon mbirum Kunkande yéen ñi ko doon xaar xar géej gi suba ci bésub tamxarit bi mën ngeen jàpp ne du am comme ni ko ñenn ñi fooge woon Kunkande daal moo waxoon waqet